képp koo xam ne xeet na xal dina lakk sa daan dàgg man ñëw naa Dakar pour jàppale président Macky Sall pour mu am un second mandat dès le premier tour président Macky nag ma doon ñaan congrès bi ñu def ko stade de l'amitié laajuma ko dërëm laajuma parti bi dërëm na ma ko jox ma organiser ko ba bitti bi def ci ay écran géant pour mu fees moom mu ñëw def déclaration programme am loolu laa koy ñaan muy le premier décembre li ci des it damaa bëgg mu toog Mermoz bàyyi ma ak ñoom Sonko ci Dakar ak ci banlieue bi fu ma taseeg ñoom danaa leen duma moom loolu laay wax fu ma taseeg ñoom danañ ma abal ndax yoon wi danañ ma ko abal fu ma jaar danañ ma abal yoon wi ñoom loolu laa wax muy lu leer réew mi kenn du ko foyee doo dem lekk ci régime bi ba sa koll fees fukki at ak juróom ngay jël ay fonds commun muy ay xaalis bu dul jeex ba pare nga ni man mosuma lekk benn dërëm fonds commun lan la ku mënta lekk kay ni dix millions la ñuy tuñeel waa waa assemblée buñ la joxee fonds commun kay waroo ko jël beneen bi ngeen war koo laaj fukki at ak juróom solde boo ko seetee cumulu solde inspecteur bi mu nekkoon tey doog a génne mënta jënd këru cent cinquante deux cent millions lu mu doon dunde ak njabootam loolu moo mat a laaj Sonko beneen bi nee na am na xaalis tuuti bi mu fi bàyyee administration yan marché la am ba am xaalis ak ñu ko fay xaalis boobu loolu moo ko mat laaj bu mu nax nit ñi bu mu nax nit ñi moom ci boppam gënul ñi fi ne inspecteur yu ko mën fuuf gën koo honnête ñoo fi ne kon bu mu jël nit ñëpp ni régime bi régime bu dee régime moo moo dundal gars yi moo ko dundal moo dundal patron bu Ndiaye ndax moo doon patron Abdoulaye Seck Sadaga nee na tase naa moom kër Macky Sall muy wut intervention tontoogu ci na tontu ci loolu loolu mooy débat bi mais ñëw di wër di yàq deru nit ñi ku nekk nga ni nangam la def loolu waxul dëgg beneen bi fen wi gën a réy Sonko def ko moo ni assemblée nationale waa bureau bi yëg nañu dix millions billahi wallahi taala mosuma toog en tant que premier vice président fuñ ne dañuy jox député yi dix millions ci moom laa ko déggee moom laa ko déggee na wax ban réunion de bureau la woon ndax fen yooyu dafa dafa tar te mi ngi ci persister leneen li laaj leen ko lu tax moom plus fort reste moom nee na daa bëgg a nekk euh, président 47 listes yi defe naa ne rawu ci juróom te plus fort reste ko indi assemblée nationale ci ñi am laa wax député de ñi am député rawu ci juróom ci ndaare yi la bokk ci bi ñuy séddale Casamance ga mu dëkk boo xoolee résultat yi Ziguinchor quartier ba mu dëkk Sonko bokkul ci cinq premiers yi ci résultat kooku kon mënuñoo te nelaw en tout cas man bu ma ko Macky Sall àndee dama benn guux laa koy def moom ñu di mel ne moom moom rek nag laa ciy tontu yaa douze véhicules laa jënd vient de France benn nag du ci bu bees ko jënd Bruxelles andi naa ko fayal leen yëpp douane te campagne rek laa koy doyee fukk ak ñaar. campagne biir Dakar. rek ak banlieue bi loolu laa def. mais nañu ba génn. mais euh, euh, waaye man bu ma waxoon xanaa xanaa seen sondage barke Cheikh Ahmadou Ba moom Sonko bu nu bu Macky bàyyi woon boole ma ak man bu ma gisee ma xàcc bàyyi ma xam ne liggéey amatul njëriñ Sonko mos may ñaari nit ñaari téeméer na wax ku ma a jox ñaari téeméer ci Ziguinchor Sénégalais ñàkk nañ fayda ba ñoom ñuy fekk ku mel ne Decroix wala Sonko Decroix sama koñ la dëkk buntam da koy teg te Decroix lekk na fi ay milliards yoo xam ne yi ci parti Blanding ñoom bi bi muy tas Ablaye Wade moom la doon financé pour mu tas parti bi moom de croix quartier ba mu dëkk Nord Foire mosu faa may nit mille francs dem leen ngeen laaj ñu def euh, euh, porte à porte boo demee koñ bi ñu dëkk Nord Ouest Ablaye Ndour Cissé loolu la ñuy tudd duñ tudd keneen waaye ñoom ñu ni ñoom moom réew mi xanaa réseaux sociaux yi zéro virgule zéro un pour cent te ñooñu amuñu carte électeur loolu mooy wax bi bàyyi leen di nax nit yéen da ngeen di jay nit ba mu def Sonko du tus du tous moom ñëpp a yem li yi def bu am ay ay sàcc yu fi ne sonko bi nekkee impôt et sàcc na bu dee am na sàcc ca foofa li muy jiñe moom ci sàcc yi la mooy premier sax waaye du deuxième loolu laa wax bu dee am na sàcc laa wax ne mooy premier sàcc bi ndax ci loolu la dund na arrêté bu leen gëm gëm loolu sonkoo ngi fi bari dem démb la juddu 2000 la commencé liggéey nan la fi amee immeuble boo xam ne fam ko am ci xolu Dakar la man am naa doom bu ñuy wax Cheikh Abdoulaye mooy directeur xulum moo ko njëkk foofu ci koor bi te mos amagul kër këram gi nekk Touba àggagul Sonko man fee tabaxub immeuble nu mu def ba am ko ñenn ñi nee nañ dafa dem napp waa SICAP parce que ñoo ko doon joxe ndax booba jege na tay bu njaay ñu jox ko kër gi nan leeral nu mu amee kër gi lu mu jënde kër gi na ko wax loolu mooy débat bi débat yi amul njëriñ yii ngeen di def mënu leen a fexe ba kot kotal Sonko ba Sénégal fal ko man de bis bu Sonko nekk président man ma ma tuxu nekk euh, man man tam koo xam ne ci peut-être Côte d'Ivoire lay dëkk wala Mali mais man